mooy gaaw a daanu di yéex a taxawal taxawal te du dëgër taxawal mu dëgër te ngay gaaw a bàyyinde ko moo ci gën benn kaas ngay naan ñaari kaas ñetti fan mu nekk ci yow den ko garanti ci amul effet secondaire garanti ko ci boo ko jëndee lañ la ci wax gisoo ko yaa moom sa xaalis. waaye may wax ki leen yebal ñoom ñëpp muy Macky Sall ma fàttali ko ni bi ñu dooree jàkkaarloo moom ak man ba tey. xam na ni su amee ku ragal moroom moom moom ma ragal moom Macky Sall xam na ni lu toll nit tarfata ay ci ragal lu jëm ci moom man awma ko bu doon dese na sago ak xel dina xool neneen nu muy doxale moom moo yor nguur yor larme yor police yor gendarmerie yor justice te su tëddee ku ko yeewoon trois heures du matin ko Ousmane Sonko mu yuux àll yépp yëpp waaye waaye awma lu toll ni tarfata ayn ci ragal ko malgré li mu yor yëpp ma koy gaaral nag di ko garantir ni ko bu soobee yàlla nemmeeku tuur bii ñu door niñ ko commencé lañ koy wéyalee nu mu gën a calmer bu ñu xëyee ëllëg dañuy continuer dem fi ñu war a dem muy Malikunda muy beneen dëkk muy beneen dëkk dinañu continuer suñu nemmeeku tour ndax ñun kenn mënuñoo intimider bu dee nag nii lañ ko bëgg a doxalee lañu andi ci armée gendarmerie bokk andi ko ci police andi ko ci renseignement généraux loolu lépp nañu topp fu ñu dem rek waaye du tee nii ma ko commencé bu soobee kii bind dinañ ko yeggalee noonu may wax ak nag patriote yépp na seen xel dal na seen xel dal nañu continuer la ñuy liggéey ñoom nañu jël seen responsabilité ci provocation yi ñuy def te àdduna yëpp gis ko lu ci am rek ñëpp dinañ ko gis may dellu nag di waxtaan ak sénégalais yépp kilifa yi citoyen ordinaire ak ku munti doon tooñ baa ngi bëgg a ëpp de te ñëpp a koy gis ci la ñuy xëy ci lañuy ñuy gont moom makki Sall am na sañ-sañ saa yu ko neexee mu taal otoom dem fu ko neex ci réew mi dajale nit ñi jox leen xaalis pour ñu yooxu turam waaye ñun amuñu sañ-sañ génn ci réew mi dem dajeeg Sénégalais yi soxlu ñu leen jox xaalis te fu ñu dem par yàllaa ko defee noonu Sénégalais yëpp génn ñu saafoonteeg ñoom wax ak ñoom loolu du am de dinañu continuer suñu tournée. incha allah nii ñu ko doxalee moom gendarmerie ki ko jiite fii nee na man amuma droit am convoi waaw kan moo mën a gis Ousmane Sonko fii mu toll ci réew mi ne mu ngi génn moom dong di dawal otoom walla moom ak chauffeur dama ngay dem tournée dëkk bi bés bu ne convoi am fi moo xam sëy bu ñuy takk moo xam ñuy dem sport moo xam leneen ak leneen moom moom bis bu ne mu def convoi waxuma convoi politique nag waxuma convoi boo xam ne état weeko ko tax a jóg waaye convoi politique bis bu ne mu def ko ay ñoñam bis bu ne ñu def convoi dinañ def convoi ma ànd ak ñi ma war a ànd ak yépp ñu def suñuy oto sama sécurité mat sëkk sama communication nekk ci ñu dem nemmeeku ñu ñu war a nemmeeku lii nag dañu bëggoon waxtaan tuuti ak Sénégalais yi te gën a dalal xelu ñi nga xam ne am nañu jeexi jaaxa àdduna dafa am fu muy toll ku nangu nooteel ak jaay doole luñ la tegati dagan na dañoo nekk ci réew bu tudd Sénégal am ay charte moom mii di wax tey diggante 2009 ak 2011 dafa wër Sénégal yépp président Ablaye Wade mosu koo tere ne ko doo dem doo dugg dëkk sàngam te musul dem moom dong da doon ànd ak ay ñoñam ñu dem kon suñu nangoo tey mu imposé ñu lii bu yóbboo ñu arrêté li ñuy liggéey li yëngu nag li ko yëngale ko ëpp doole mooy tiitaange bi nekk ci ñoom jamono jii élection yi ñu génn ñëpp gis nañu réewu taax yépp wala dëkku taax yépp dañ koo ñàkk boo gisee bi ma ñëwee Mbour dama ne man Mbour commune taxumaa jóg waaye dëkk dëkkaan yi ci biir ñoo ma tax a jóg ndax Mbour commune ñoo ko gañe woon ci élection bi passé donte ñoom ñoo gañe département yi fu ñu gañe département rek ñun ñoo gañe commune bi moo tax man dëkk dëkkaan yooyu moom ma intéressé te kenn mënu maa tere dem ci dëkk dëkkaan yooyu kon mbokki Sénégal dañoo bëgg ku am kàddu war a mën a wax ak Macky Sall ne ko li mu nekkee du dëgg na waxtaan ak moom ndax moom mooy taal fitna ci réew mi bi mu fi nekkee ba léegi fitna ci fitna la tegu ku am kàddu mën ko koo wax na téye loxoom ndax xale yi ma gis nii ragaluñu ko de su génne woon euh, un million de de alkaati fii xale yi ragaluñu leen sànni nañ tey seen lacrymogène benn xale bougéwul fi mu taxaw loolu nag bu yàggee ci fitna lay jur fitna lay jur ci dëkk bi kenn mënuma imposer ma dem toog ndakaaru naan maa ngi xaar 2024 damay def samay tournée citoyen la am na droit circuler fépp ci senegal kon nañu waxante dëgg su coow amee de nañu seet kan moo tooñ ñu jàpp ci loxoom ne ko tegal ci suuf ndax li ngay def baaxul ci réew mi bu ko mënul nag ñun ñépp nag du question par parloo de ñun ñépp ñoo war a ànd mànkoo jàkkaarloog moom ndax lii su wéyee nag lañu amoon ci démocratie Sénégal te li muy wund mooy liberté di sénégalais bu nekk am dem ak dikk dem nemmeeku ku la neex loolu la Macky Sall bëgg dakkal ci réew mi ndax dinañ ko nangu ndax di ngeen ko nangu loolu mooy la seule question man nag en ce qui me concerne xalaatuma ko nangu moo tax ma ne leen bu soobee yàlla ëllëg dinañ wéyal nemmeeku tuur bi te bu dee Macky Sall mën na dëgg dëgg dëgg dëgg 46 départements yi 553 communes yi na waajal ay camion ay dragon mag ay pique ba fu ma dem nañ ci topp rek ba ñu xam fu muy mujje ñu ngi leen di gërëm di leen sant mooy gaaw a daanu di yéex taxawal taxawal te du dëgër taxawal mu dëgër te ngay gaaw a bàyyinde ko moo ci gën benn kaas ngay naan ñaari kaas ñetti fan mu nekk ci yow den ko garanti ci amul effet secondaire garanti ko ci boo ko jëndee lañ la ci wax gisoo ko yaa moom sa xaalis